bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu daayira matlabul fawsayni ouvrier Touba maa ngi yëkkati kàddu ci ndigalu cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu cheikh Abdoul Khadir Mbacke bi wax ne kàddu yi ma yónni bala ma koo wax naa njëkk a yëkkati kàddu yoo xam ne kàddu yi cant la ci boppam moom sant gi muy sant mooy boromam subhanahu wa taala santaat sëriñ Tuubaa xaadimu rasuul waaye gën a sant nag Cheikh Saalihu Mbàkke te di ko ñaanal yàlla mu dolli ko ay ngërëm te fa mu nekk ndax nee yoon wi sëriñ bi dafa wax ne ku la liggéeyloo wut mën laa dimbale te moom sëriñ Saaliwu daf koo liggéeyloo tànn gi mu ko tànn seet ñi nga xam ne sëriñ bi da na tontu laata ñuy jàngi métier laata ba métier ma mokkee ñu jox ko sëñ Tuubaa di ko ci liggéeyal sëriñ bi tontu na leen ba noppi ñuy soog a jóg ndax yéen a jàng métier. wax ne mécc mi ñaq wi ngeen ciy ñaq sëñ Tuubaa ngeen ciy ñaqal sëriñ bi wax ko ci bayit wi sëñ Kamara yëkkati léegi yéen ñi may ñaqal te sax ci yàlla fàggu na seenu pajug aajo ba noppi waqdi hawaïja lazina daamoo fi xidmati ngeen tudde ko nag alali sëriñ Tuubaa ku ko mën a bëgg ak fu mu ko bëggee da ngeen ko yebal na ko demal ci Cheikh Mahamadou Moustapha moom la ñu sëriñ Saliou boole loon fu mu ñu joxoon ñu dem wutal sëriñ bi it ci semaine bi bisu boppam boo xam ne moo ko moom buñ doon wër li ngeen liggéey ci Touba ci ndigalul sëriñ Moustapha waaye ci fu Cheikh Saalihu ca lépp jëm ci ay daaray alquran wala ay juma wala ay jàkka ay wàllu barabi sëriñ Touba sëriñ mustafaa nee na loolu lay njëkk a sante sëriñ Touba ba noppi ndax wóor na ko ne sëriñ bi bëgg koo dimbalee tax mu boole koog yéen di leen santit yéen ci ba mu leen boolee ak yéen ba bisub tey xoolaatu leen beneen joxoñ bu dul joxoñ gi mu leen ko joxoñ kenn desu ci nag loolu nag moo waral cant googu day ñëw ba ci seex Muhammadul Muntaxa mi nga xam ne tey mooy Serigne Touba tey wëllëreem di xaritam lool waxtu wu ne su ngeen ko fa séenee su ngeen ko yégee ak bu ngeen ko yëgut tawat na ko seeni soxla ndax nee na li ko sëriñ Saaliwu booleeg yéen su fekkee ne bala cee def dara da leen a gis ngeen xam ne kon mboole goo matut war nay mën a taatan seeni soxla di ko joox sëriñ bi te du ngeen ko yëg lu dut ne daal li leen koy tax ngeen di yëg mooy la ngeen waroon a wax sëñ bi moom faju na ca waxu leen ko sëñ bi su boobaa nag booba moo leen wuti ca kàddu ya waxal ko sëriñ bi guddig tey gi it xam ngeen ne xat na ñi ko soxla it bari nañ te gàmmu gi it kenn ku ne doon wàlli ñu di ko def li feeg defoo ko doo am tuyaaba waaw boo doon walli ci ci tànt yépp te defoo ko doo am tuyaaba mooy wër nit ñi rek naan yekk nañ ay añ yekk nañ ay añ ci sukkoo añ doo añ te kon moom mii nee na moom tuyaaba képp lay bëgg ndax nee na tuyaaba moom du ko doyal kon gàmmu war na ko moom it waaye loolu ko gàmmu di war war këram fees dell def ne bala maa defal dara lu jëm ci sama bopp damaa jëfi ndigalul sëriñ ba noppi te ndigalul sëriñ bi mooy ñëw ba ci yéen mu waxtaan ak yéen kaddu yam daan waxtaan ak yéen ba noppi ci ndigalul sëriñ bi ci ndigalul sëriñ Muntaxa soo ko jéem a dem nag defi yëfi boppam kon nee na jataay bi su guddee ak su yàggee lépp jataayub liggéeyal sëriñ Tuubaa ko jàppee te de jataayub sëriñ Tuubaa mu am fan mu am ñetti at ak mu am ñetti waxtu ak mu am benn seconde yam ndax sëriñ bi moom juboo naag boromam ci faj aajo te saa yoo jógee ngir moom ba noppi mu faj say aajo kon nag sëriñ bi nee na lim fàgguwaale ëndaale ko jaar ci sëñ Muntaxa bëgg ko def ci yéen ab sëriñ ci ci guddi gi mooy yàlla faj seeni ajo waaw loolu rek lay ñaan ndax wóor na ko ne bu seen i aajo fajoo aajo la sëñ bi bëggoon ci yenn am ko ndax sëñ moom aajoy taalib yi rek yëpp képp faju la ko taxoon a jóg kon nag nee na jataay bi dafa yàgg ci yéen te guddi gi sori te kenn ku ci nekk dese loo war a def mu fas yéenee ñëw rek noonu mu leen ko waxe woon ndigal li ko sëriñ Saaliwu joxoon bu ñëwee war leen koo wax mu fas ko yéenee ñëwee mu fas ko yéenee ñëw waxe ko daa mbokk mu baax ñu di ko laaj na ko lu la gën a neex ci jikkoy sëñ Abdou Khadir mu ne fonk grandiw fonk grandiw rek randiw du randoo ci moom waaye moom mii itam fonk randiw moo tax lu ko sëriñ bi jox lu mën a doon su waxtu wa jotee dana dana dana da ngeen ko ci gis moo tax sëñ Moustapha Diatara moomu ngay wax sëriñ bi xam ne am na ngànt moo tax mu yónnee ci ay ndaw nañu na ngeen ñëw ànd ak man ngir dem ci bisub waa daayira Matlaboul Fawzayni boobee kon na ngeen yëg ne sëriñ bi moom jàpput menn mbokk mu jiital ci yéen jàpput benn taalibe bu mu jiital ci yéen li ngeen wax nag sëñ kamar murid yi dañuy fas yéene taxaw rek naan sëñ bi ñaanal ma ñaanal ma waaye sëriñ bi it aajo woon ak ñaan ñaan gi sëriñ bi aajo woon ak ci yéen murit yi ngeen nekk ci seen baas bii fas yéene dundal guddi gi ci barkeb sëriñ Touba ci kàddu sëriñ Touba yéen ñëpp na ko ñaanal ab liggéeyam àgg te bañ a amum ndog ndax kat bu sañoon liggéeyub sëriñ Touba bi dañu ci liggéey lu rëy te xeebut ñaanuk dongo yi wóor na ma ne sax ñaanuk dongo yee ko gënal ñaanuk boppam waaw kon nag ñan nañ ko ñaanal sun boroom àggale ab liggéeyam mu àggale ko coleet ci ci wér-gi-yaram ak wéru xel ak ak dalu xel ba dara bañ caa des loolu daal bu ngeen ko ko fàggulee ci guddi gi moom it mu fàggul leen ci guddi gi suñ borom fa seeni aajo asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh yéegi nax bu reek na seen siraat na sutur siraat na samtaani ma xëy na wala ma wala dalin yéen bokki jullit yi fi teew yëpp yéen waa daayira matlabul fawsayni di ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom ngeen ko bokkal ñëpp ñi teewee jataay bi ak ñi jut teew ci jataay bi te bokk ci fu ñu mën a ne ci réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen jotti nuyoo alxalifatul am li taifatil muridiya sëriñ Muntaxa Mbàkke sama kàddu gi ma leen waroon a wax nag wax naa ko fàllu galas sillam yi ba jotti na leen ko xalaa ak mali waccin ca ca ca anim gën a mat noonu mu ko waxee rek noonu sama làmmiñ la ko doon waxee kon nangeen rafet njort bu baax te xam ne wet gi ngeen féete ci kër gi féete féete ko féete ko sëriñ bi sëriñ bi xam na ko jàpp na ko ni leen ko fàllu si waxee li ngeen liggéey ci yoon wi ni mu leen ko waxee ci sëñ saar yi ba nëga ni mbooleem damaa jëlee le sëriñ bi waaye àndandooy sëriñ bi yëpp xam nañ ko te rafetlu ko kon yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla gën a dooleel ñi ngi leen di sant di leen soññ ndax sëriñ Tuubaa daa liggéeyal yàlla ba du abbaani kenn fenn lenn lu mu soxla lu ne ak nitam mën na ko kon nag yéen ñii ci jumtukaay yooyu ngeen bokk kon war ngeen a sant yàlla ndax sëriñ Tuubaa moom li mu bëgg fokk day ku yàlla boole sagale la ci nga bokk ci ña koy amal war ngaa sant yàlla ndax sëñ Touba sëñ Blaat nee woon bëgg liggéeyal sëñ Touba gu ne xam ngeen lu ciy seen wàll mooy façon rek bu ngeen ko façon rek la ca des mu sagale leen bu sottee mel ne doon ngeen ci dara waaye fekk mooy def lépp <laughs> kon nag mu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen nuyu nag ci guddi gàmm gii nga xam ne Cheikh saaliw moo ma dig joxoon digal ne ma naa fi ñëw di leen waxtaanal ci gàmm ndax gàmm day lu ko itteel ndax daa itteel sëñ bi te itteeg sëñ bi rek lay xool njaboot gii sëñ Tuubaa gii mu fu bàyyi it noonu lañ ci mel sëñ Muntaxa mii fi toog tey ci jataay bi noonu la ci mel ndax dañoo xam bëgg sëñ Tuubaa ñoom moo ñor lu sëñ bi xool rek xool nañ ko lu sëñ bëgg rek bëgg nañ ko te gis nañ ne gàmm dafa ñor sëñ bi ndax dégg naa ci sëñ sëñ Abdou Khadir daa wax naan sëriñ bi moom lu mu wa lu def lu ne mooy taarixal boppam ba muy waxee ne ah yeytu moo li dënn bi moo tax kenn du la wax ne sëñ bi def nangam nga ngay tàppe ay ay xalaat rek di wax déedéet déedéet <laughs> ah yeytu moo li dënn bi min asasi yoon boo koy dalee dégg sëñ Abdou Khadir moo di ko wax daal ne di ko lim may dégg mu naan sëñ bi gàmmoog léegi ren la ci téeméer at ba ba ma koy dégg mu naan ren la ci téeméer at juróom te te li may wax lépp sëñ daam Abdourahmane loo ma ko nett la te guddi googu moog maam si xerofaal ci ña ko fekkee lañ bokk di lim di lim ñam xam ci ñi ko siñ daam Abdourahmane loo wax ña fekkee nañ ko ca Mbàkke kon sëñ Tuubaa ak gàmmam dat bi moo ko bindal boppam waaw daal ne sëñ bi nag lu muy wax luñ koy waxal fekk na bind na bind na lu ko firndeel waaw moo tax kenn du ko tàppeel dara déedéet sëñ Tuubaa moom mu muy moom moo moo moo fo ñëw dundal gàmm soppi nañ ko doon def daal di ñu indil nag njariñi gàmm bind ci xasaay itam wan nañu njariñul gàmm lim mën a lim mën a jariñ daal di ñuy xamal ne laylatu mawlidi nabi laylatu max wiriye bi laylatu max wittaha bi wa toori si taasub guddi gàmm mooy guddi gi nga xam ne ci la sikk fare ci la coono fare ñi amoon bàkkaar ñëpp ci lañ laabe bi han najaatu wal falaa maha suróori wan najaa bi han rabaax wa salaax maha difaahi ni xabi ci lañ mucc ci lañ texee ci lañ ame mbég ci lañ ame fajuk aajo ci lañ tonowoo ci lañ amee ak baa ci lañ jañe jañe mbugal yëpp xawat xawaari xabadat xani ruwaati sabadat sabatat xawat xawaari xabadat xani ruwaati sabatat ka misli naarin ut fi at mahammiha i daqami guddi ganek sallallahu alayhi wa sallam làq na ay xarbaax yoo xam ne ruwaat yi nettali nañ ko nettalikat yi nettali nañ ko niki ay irhaasaat ab yonent balaa ñëw day am ay waajtaay yoo xam ne mooy tegtale ne kii di bëgga ñëw ab yonent la te bu tàmbalee gane àdduna rek nga tàll koy tàmbalee xam moo tax Moussa moo tax Isa tàmbali mën a wax ca lal ba fil mahdi sabiyan boobu nga digg alxuraan di ko wax mu ba mu nekkee ca lal ba rek ñu naan eh, kii num doon mu ne xaala inni abdullahi aatini alkitaab wa jaxalani nabiyan wa jaxalani mubarakan aynama kuntu aw saani bi salaati wa sakaati ma dumtu hayya wa barram bi walidati walam yital ni jabaaran saqiya loolu ir irhaas la ci irhaasaat yi dikkal ab yonent sallallahu alayhi wa sallam bi mu gënee adduna moom lu bari noonu la daal ñëw ndax waxee ni saawata allati qad xasumat wa jallati lil fursi xablal millati wa suyirat kalhanda bi naarin ut fi at googu sëñ bi wax ak sawara wuñ jaa jaamu la maju si di di jaamu sawara woo bàyyi yàlla waaye guddi googu ci la fay daa jekk ci rek giim ak ndox moo xam ne dañ ko doon jaamu mooy xëy na daa jékki-jékki rek fay mooy li borom bor di wax ka anna bin naari ma bil ma'i min barami daa mi ne dañoo fab la woon ca ndox ma ndox ma faye ko sawara wa sawara ñu sotti ko ci ndox ma waaw ah, waaw ñoom ñaar ñi daal di weccee loolu kenn xamul ka anna bin naari ma bil ma'i min daramin min daramin min balalin waaw ah. ka anna bin naari ma bil maa'i min balalin la newoon ca ndox moom mooy ñëw sotti ko ci noonu ca sawaree daal dem ca ca tàkk-tàkk la newoon ca sawara mm, ca mm, tàkk-tàkk dem ca ndox ma xata sarirun kasara li ajli hawlin ihtara min noori afdalil min noori afdalil wara rabbi alayhi salim ba laal ba xam ne buurub faari eh, bu imbra ka ko yilifoon laal ba mu newoon sax ngir tiit te kooku ngóor gamaa ne woon ci Baxdaad kon loolu lépp ci irhaasaati bi la ndax fukki euh, surfatu ak ak ñeent dañoo ñoo ca toj ci guddi gi ca tawax ba kon sëriñ Touba looloo tax mu ñëw nag bëgg a yeesal ngirum yonent bi sallallahu moo tax mu ne baxara salaatin laata sol bi laari wa sahbil xudoon wa biyee jaddidi sabil bilaahidan aw alamin mu ne mawliduhu muazzamu mubarakun muxtanamu tansimuhu yanaati mu xalaa sawi taqaddumi ganek àdduna ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu màgg la lu barkeel la lu ñu warmaal la màggal koy war na kilifa yi loolu sëñ Abdou Khadir laa rek mu di ko firee yi war nañ koy def nii ñi deen ci roy fa man mawlida nabiyina babil huda fala yuhasabu xada fantari man azimi képp koo xam ne màggal nga gane sallallahu alayhi wa sallam bu yowmal xiyaam yi des des la isaab kon nag dee ko wormaal te di ko màggal fa kullu man anfaqa fi mawlidihi lmusharrafi maalan bi xayri sarafi walaw bi xadri dirhami képp koo xam ne dundal nga ci ganek àdduna sallallahu alayhi wa sallam alal te yàq taxut donte benn dërëm la fa innahu kaman xadar yowma hunaynin wa sabar wa yowma badrin wa nasar xayril wara muhiimi kon kooka na xam ne mi ngi mel ni ku teewe badar te muñoon ndax badar da xeex bu day xeex bu mi ngi mel ne ku teewe yowma hunaynin la moom laa war a njëkke yowma hunayn isan jabatkum kasratukum falan tuxnakum falan tuxnakum sayan wa daaxat aleykum laaru bi ma raxubat yowma hunayn day bis bu metti boo xam ne mbooloo ma dañ leen yéen mbooloo ma dañoo yéenoon yéemoon jilif yi ndax dañ leen ëpp lu bari daal <coughs> waaye jullit yi ñoo mujj gañe lépp waaye danga mel ne ña ña ña muñoon ci jullit ñi yàlla dana la boole ci ñooñu da nga mel ne teewee nga ba dara te muñ te dimbaliwu ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam te xare Badar mooy xare bi njëkk ci lislaam waaye mooy bi ci gën a màgg képp koo xam ne nag teewe nga gane sallallahu alayhi wasallam te màggal ko moo xam ci suukar la wala yàpp na la wóor ne tuufu nga ci mbig ci loo xam ne dana saxal mbég ci yow te doo dajeeg lor moo xam xeeti ngato nga ci def moo xam loo xeeti kafeel nga def loo def rek ci yooyu mooy fa innahu fa kullu man qad xadara mawlida afdalil wara muaziman mubashira bi sukkarin aw lahami wala nga togg reerub yàpp wala loo ci mën rek nga ci yooyu boo ko ci defee fa innahu qad zahira bi maa yudimu bushara wala yulaaqi darara mujtimai kon noonu loolu sëñ Tuubaa dellu wax ne fa man taxaa man xayya a li man lahu qad qaraa mu bajjilan fa xaba a xayraati ahlil himam képp koo xam ne waajal nga ngaw ñam jax ko ku koy jàng ne la wóor ne denc nga yiwi ñi am itte denc nga seen yiw mu daal ni nag yaa mulhiman qad waffaqa salli ala man xuliqa wal xalqa faaxa xuluqa kal xalqi wa tasallim mu ñëw nag ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa moom mi nga xam ne yow mi nga xam ne yaay yenki wal tay def tawfiix na nga dolli ki nga xam ne biñ ko bindee yaa bind nañ ko waaye moo kawe ñépp ab bind moo leen gën bind moo leen gën jikko la ilaha illallah wa kenn du moom walam yakun mutahama walam yakun mukalsama bal faaxa kulla man sama min muntamin li aadami doonu toon ku taay walam yakun nekkutoon mukalsama di ku ñag yaral kanam tatal boo demee ci imruul xaysi dañ ne kaanam mu mukalsamul wàcc kaanam mu kal samal wacc moom kanam gi dafa ñaggaraloon te tal yonent bi ne safaanub la defoon kanam gi dafa kuttumbal woon woo ci mu dawuru ba noppi nooy bal faaxa ku ku ku ku ku ci aadama doomu aadama yi moo kawe sëñ bi nag dafa ko wenn way woo xam ne moom kenn mus gis mu ne waxuwa akmalul wara xalxan wa xulxan zahara wal mislu xattu lam yura walan yura fi séemi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo gën a mat ñëpp bind moo leen gën a mat jikko wow doy na kenn mu sa gis rafet rafete noonu kemam masi su koo gis masi te di su ko gis ci jikko ndax yàlla ci jikko la ko tagge way naka la ala xuluqin azim way na laka la ajran ghayra mamnun way naka la ala xuluqin azim mu dellu wax ko ne huwa alladi faaxa siwa min albaraya bi huda ata bada kat bu suma fi ansikal muazim daanaa di ñu ne sëñ Abdou Assis nee na wenn way wii rek doy na doy na gàmm ndax sëñ bi da cee wax ne sëñ bi daal yonent bi daal kurul moom moo la kawe ci bindeef yi ci ci njubam ba mujj aw tëram ñu bind ko ci arasak àjjana yeeg téeg yéeg yëpp wafel naa ni wasu ko foo dem rek tur yonent bi ak ñu bind nañ ko moo tax sëñ bi moom euh, mu ne dann yonent bi way wii dégg naa ko sëñ bi mu daako ko yéem ne wu ko wu ko mu feesa ja yéem na ko darajat yi kaw nii habdallaahi xadiima habdihim ni habdillaahi sama daraja man sëñ bi mooy nekk gi ma nekk di jaamu bi yàlla di liggéeykatub jaamu bi yàlla bi nga xam ne mooy eh, doomi abdullaahi muy <laughs> ni ci joxe yàlla cir joxe ci yonent bi cir ci wenn way waye fale ci waye fale ci boppam noonu ah loolu li ma am ci yeneen bi léeg ko may. delluwaat wax ne xaddi wiqaayatu li rajlil li rijlil mujtaba min shawkatin wa maa yudaahi xaqaraba sama leex bi def naa ko muy fegeel ci tànk bi yonent bi ci déggu ko nar a jam lépp loo xam ne nar nañ ko wax yonent bi rek jiitu naa man jiital sama leex loola dal ci man te bañ a ci moom te ab leex la nit di gën a fonk ci àdduna sayram yëpp sa leex bi nga ci gën a fonk moom nag daa bëgg mu jiitu dég yi di ko jam fii dellu wax ne mahab mahabatiyal muxtaara sayidina sayidana xubbil maxaaniye wal ahliina wal walada sama bëgg yonent bi faral na ma bëggatuma kër bëggatuma ñooñ bëggatuma doom dammi wa ahli waw laa fidaa lahu habdan xadiman lahu muskaana li sanada sama deret ak sama ñooñ ak samay doom ñëpp jote naa ko yonent bi wax nañ ne ba mu ko waxee njaboot gi mu fi bàyyi muy sëñ Modou Moussa ak sëñ Fallou ak sëñ Baara ñoom ñëpp dañoo wéradi wéradi goo xam ne ku ci ne mënoon nga caa deme ba ñenn ñi nee sëñ Baara ca la jëlee dër gi kon xam nga ne la jot gam jotoon ci yàlla yàlla nangu na ko mu wax ne yu ba jilu ku lii ku lakkal yow ma maxadin wen sa rabbi laa urat daxara saawal sama lépp dana màggal lépp yónent bi moo tax kenn du ma gis ma lot dellu wax yu wakkidu kulli xabla hubbi wa xidmati bi man xaada lii xayral maqaamaati bi tey sama lépp dana feddali sama buumu cofeet ci yonent bi ak sama liggéeyal ci yonent bi moom mi nga xam ne moo ma jox ngën ji daraja te jaar te defal ma ko ci tëyyu tëyyu mooy loo waroon a dox jéego nga waroon a def jéego bu toll nii jéego bu nga teg si tànk fii ñu benn jéego ci jumaa ja boo defee te mu gën ko mu gën koo gaaw loolu mooy tey nga dem ci yàlla nga dem gi day gaaw lu nit doon dox ci mennaat ci fukki at ak ñaar yow yow daanaka ci benn bis nga koy dox loolu mooy tey moo tax sëñ bi ne li kullin min al axyaari fadlun wa rutbatun wa maa kam ni abdillahi yëpp am nañ ngëneel am nañ daraja waaye ibnu abdullahi muy yonent bi ah kooku noom kenn melu ni moom falaa tax yi somna abdillahi bil fadala inal kawaakiba yox fiha sinimar yenent yi bu leen ko gam-gam le kenn bu leen ko xiyaas ak kenn li kullin min assaadaati jaahun wa xurmatun walakin jaaxal mustapha albari antali sa sang yëpp am nañ daraja am nañ warma waaye daraje yonent bi da leen a kawe suul bidaay am na feneen fu mu ne bidaayeetul maahi nihaayatul xiyaar faddalahu xalal wara sul ixtiyaar fi yonent yi tàmbalee seen daraja fa mu bato ba nga xam ne mooy seen bato fa mu yem bato bi yonent bi tàmbalee jëm kaw la in jaa bil ayaati rusulun taqaddamu fanaaloo bikal ayaati min si tafaduli yonent yi kiimaan guñ am ci yonent bi lañ ko jëlee yonent bi ci lañ ko tànk li man jaa yebqi min ka naylan mahal huda xata ya basirin tatfawul faqara wal maala ku dikk ci yow di sàkku ak may di dana am may yoo xam ne dana ko jañal ak ñàkk ak bekkoor waaye li man xaadahoo jahlun lakum sa tajarru in asaabun sadidun yoorisul faqra wal xadla képp koo xam ne ak tax na mu ñëw di déjéerlu ci sa kanam am mbugal mu tar moo koy dikkal moo xam ne dana ko donnal ak ñàkk ak ko rey moo tax bërëb boo dégg ñu wax fa yonent bi dara rek lu mel noonu dana fa dana leen dal kuy tataawal ak yonent bi ak barab buñ ko defee ak ñàkk a ciy topp ak bakkan yi laru ndax Sëñ Tuubaa atte na lépp kilta yadayhi laha sax ñun tulaa simaa ñaari loxo yi baslun wa ba wa ba sun liman laanu wa man jaaro ñaari loxo yi eh, daam lu mu jëf jum taxool joxe ci kii wut si lu baax bii nag yor aw ay ay ci kii wut kii wut kii wut si ab safaam moo tax mu ne yamiinu nabi fiiha xataaya li sijtida waaye si isaaru nabi fiiha xafaaya li sijtida <laughs> loxoom nday jor yonent bi may yu bari moo ci ne kuy tablu waaye càmmooy yonent bi ah, ku yor ak jalgati wut si ah am na yu nëbb yu rëy yu fa ne yoo xam ne ni ci àll ba <laughs> na lépp kon nag daraje yonent bi sallallahu alayhi wa misaal na leen ci loolu yonent bi dafa doon koo xam ne ci diir bu gàtt da cee liggéey loo xam ne kenn musu koo def ndax Abu Surhata Dimashqi yu mi nga xam ne moo mokkal hadis yonent bi yëpp sallallahu alayhi dañ koo laajoon limub yonent bi ñaata la su ila abu surhat surhat ad-dimashqi al-hafiz an jumlati ahadisi rasulillahi fa xaala man yuhsiha ñu ne ko yow dañ lañ di mokkal nga lépp mu ne ne xan miati alfin wa arbaata xasar alfan min as mi man rawa mi man rawa hanhu wa samiha minhu mu ne a ah, yonent bi da xam naa ne am na téeméeri junni ak fukki junni ak ñeent ci ay saaba yoo xam ne kenn ku ne jël nga ci moom dara man koo nettaliwaat te téeméeri junni ak fukk ak ñeent ndax ñooñ la fi bàyyi ci saaba fa xiila law haawulaay ay na kaano ñu ne ko ay na fu fuñ nekkoon wa ay na samihon mu ne mu ne leen mu ne ahlu makka wal madina wa ma baynahuma ñoo mu ne leen ñooñu de makka lañ newoon ak madina ak ci diggante bi wal ahrab wa man sahida ma wax xajjatal wida ak ahrab yi mooy sàmmi àll yi sàmmi naar yi ak ñi nga xam ni àndoon nañ fekke xajjatul widaa bi nga xam moom la yonent bi mujj def <coughs> ra'aahu samiha minhu ñoom ñëpp teg nañ seen bët ci yonent bi te déggee ci moom kon yonent bi bàyyi na fi ci saxaaba mia wa arbaata asara min as saxaabati kullun minhum qad rawa an rasulillahi kenn fa kon ku ne ci ñoom jëlee na ci yonent bi fa law raa kullu wahidin minhum hadisan wahidan la balaxa hadadul marwiyaati hanu sallallahu alayhi wa sallam bi hadadihim bu fekkoon kenn ku ne benn addis nga ci jëlee ci yonent bi kon da nga mën a wax ne yonent bi bàyyi na fi téeméeri junni addis ak fukki junni ak ñeent tafar biñ ko seetee te kon loolu dana doy wala kafat haasihil ahadis fi sunhi minhaaji haqidatin wa dustori diinin wa dunya laa yugaadiru min al xayri sayqa say an te kon loolu képp dana mën a liggéey dustóor mooy téereb sart mooy li tudd tudd ci jamono ji constitution téereb sart boo xam ne dana mën a yor diini ji ak adduna kon téeméer ju nekk fukk ñeent yooyu képp bu ci yemoon kon dana fi bàyyi loo xam ne mën naa indi ngir moo xam ne danañ ci mën a tëral tiirib sart boo xam ne dana mën a yéwénal adduna ak àllaaxira rawatina bi nga xamee ne sii rek <coughs> waxat rawaa ba waxat rawaa alaaf am na ñenn ci ñoom rek ñoo xam ne waxat rawaa baadahum alaafan am na ci lenn ci saaba yi rek ne waxat rawaa alaafan ñenn ñi rek am mën nañoo tare ci yonent bi juróomi junni addis am ci ñoo xam ne ay téeméer wara wara waa baaduhum almi iina ma alma iina ay téeméer abu abu hurayrata abdurahman ibnu saq addawsi moom dong mokkal na xamsatu alaafin wa salaasum eetin wa arbaha wa sapoona hadisan juróomi junni hadis ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ñeent abu hurayrata képp mokkal na ko maa taaquri islaamihi te eh, ànd ak moom ku yeex a jébbalu ndax ñetti at rek la am bi ndax xaama xaybar ci la jébbalu waaye nag yonent bi diir boobu dafa taxoo moom am bi am tawféex yi yonent bi tàllal daal ne ku ci ku yor kaala Abu Hurayra daal ne yor naa kaala mu daal koy teg ci kanamam yonent waxa waxa woo noppi naan nekk jëlal takkaat ba mu fa jógee nag lu mu déggati ci yonent dut ko fàtte ñetti at képp la taxoo ak yonent bi mokkal addis yii ma lay wax lépp ba nga bi yonent bi eh, nappee eh, eh, biñ ko nappee ci suñu bët gars yi doon nañu sikk kii daal li muy wax ñu woo ko fii mu bind li muy wax lépp ba ci déen sa ñu daal di koy dugalaat ci néeg bi gis ko ma kii ko doon bind ñu dafa laajaat ñu tim téere bi fu mu jaaroon fu ne mu jaaraat mu ne kii li muy wax wér bi saxaaba yu bari Abdullahi ibnu Habbaas Abdullahi ibnu Omar Aysatu woog Jaabiru bnu Abdillahi al Ansaari ak Anas bnu Maalik ak ñoom ñëpp ku ci ne mokkal hadiis yu bëri loolu la yonent bi taxawale kon noonu la taxawale diineem ci diir bu gàtt daal di taxawal ci biir fukki at yim am Madina ci ndax dafa wa ñaar fukki at ak la woote fukki at ak ñett da ko nekk Màkka ñi di ko tànc ak di ko sonal mu ñëw Madina daal di gàddaay nag bi mu ñëwee Madina mu toog fa juróom ñe juróom mu teg fa fukki ba taxawal diine ji ba mu dëgër mu soog a ci juróom-ñeenteelu at ba mu soog a dem yabal Aboubacar ne ko demal aji at moom lañ ta njëkk a tàmm bi awalu man salla moo njëkk a julli ñu gis awalu man awalu man sakka moo njëkk natt asaka ñu gis awalu man aslama moo njëkk a wax jébbalu naa dugg dugg naa ci lislaam wa bi saalika umirtu waana awalul muslimin mooy firnde ji waaye njëkkuta at ndax yàlla daa bëggoon mu taxawal diini ji ba mu taxaw daanañ gis muy umra waaye aj moom juróom-ñeenti at am na ko soog a yebal Aboubacar ne ko àndal ak nit ñi dem aji mu ànd ak Aboubacar dem aji Aboubacar jiite nit ñi mu nekk amiru amiru aji dem jiite loola waaye booba yàlla daa bëggoon diine ji taxaw bëgg it demee Màkka ñu bañatee jaxasoog wasani yoon yi ndax liir bii bi yëpp lislaam ngi taxaw boo makka ab dajewukaay la boo xam ne xërëm yaag ñu gëm la nee nag ñëpp ñooy bokk ñuy def yaram mu neen bu ñuy wër kaaba geeg ñëpp fa doon daje te yonent bi suñu faa dem ne cell ndax bu fa demoon kon aw yoon lay doon bu demee ba taxawal lépp lépp dëgër ba dëër na mu soog a yana yabal abubakar na nekkoon nañ aji te kuy rafle bu ma ko ci gisee koy def nanga nanga moo ko ba mu demee ba mu ko yabalee sóoratu tawbati ci diggante bi la wàcc yàlla ne dañ naa ci yëfar yéeg yëpp daal daal daal di ko yebal mu uh, sidna Aliyu ne ko atu wàcc na demal jàngal ko Aboubacar ñëw bi Aboubacar ñëwee bi ba ali ñëwee ba yonent bi ne ko ah ndax uh, dañ laa fal nga nekk amir am maamuur ma nekk maamuur mu ne ko déedéet man maamuur laa yow yaay amir ba daa bëggoon ne bu fekkee damaa xamut bi daa jox waa nga jiite man ma daal di topp ci sa gannaaw léegi yonent bi ne man kat saar bi rek la ma doon jàngaloo waaye ba tey nee yaay jiite <laughs> ak a ñëw gore Tuubaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la daal di taxal taxawale nguuram loole daal taxawale déedéet du nguur di tuub naa ko loolu la taxal taxawee imaamatum ndax imaamatu la yor waaye yorutu nguur hmm. loolu yërutu yërutu ngóor imaamatu la yor wa sallam daa doon koo xam ne bim ñëwee yàlla da ko yónni ngir mu mot li jikko ju rafet bu xeestu li utammima makaarimal axlaaqi la ndax yàlla da ko indi mu indaale njub gi alifa nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa haakasan nujaba jaamu yàlla gi ak wéet gi ci waxtu ngoneem ca ba muy nekk ca Makka di nekk xaaru Xiraa foofe la tàmbalee di jaamu yàlla rek di wéet waaye nag way saa xalatil hidaayatu xalban nasitat fil hibaadatil ahdaaw ak jub boo wàccee ci xol nit gi day teel a sawar ci jaamu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa dafa jóg rek ne nocc ci yoon sawar ci jaamu yàlla doon koo xam ne nag yàlla may na ko mu doon koo xam ne léppam xar baax la ndax dafa ñëw indaale ngëneel moo tax màggal bisam bi am solo ndax yàlla dañoo wax ne xol bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika fal yafraxoo wa xayrun maa ñi ngëneelul yàlla ak yërmande yàlla lu ngeen di dajaloo dajaloo ci loolu moo ko gën te sëñ bi jàngal nañu nee na raamal wara nay la fadlin musrihina lahu wal fadlu inda rasulillahi xaraar mbindeef yëpp ñi ngi jóg di wuti ngëneel di lagg di ko wuti te fekk ngëneel xamuñ la sax kon bisam bii màggal ko lu ñuy def moo ko gën a far ci noonu waaye nag daa am nuñ koy defee tax bi sunnati yaqooduna lil jannati biis diyaatul mi biis minnati li moxli seen maasi temps yi mu ak màggalam bi sunnati ci aw yoon wuñ ko war a defee naa dana woman ñu lil jannati biis dul minnati dolli ko xéwal nee na ci li muxlisin ñeel aji sellal muazimin ko di aji màggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ñëw di ab ummiyu te loolu alxuraan da ko indi allasina yettabihuna rasula nabi allumi allasi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injili yaamuruhum bil maarufi wa yanhihum anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alayhim al-khaba'itha wa yadahu anhum israhum wal aghlala allati kanat alayhim yonent bi mi ngeen nga xam ne moom moom ngeen di topp ñi nga xam ne dañuy topp yonent bi nga xam ne ummi yu la ummi yu boobu nga xam ne fekk na ñu bind ko ci tawraat ak linjiil mu ñëw di leen digal lu baax di leen tere lu bon di leen daganal lu teey li di leen tereel bon li di leen yenni ci yu diis yi ngeen yewoon ak ngax yi nga xam ne moo leen yeewoon mu di leen ko dajjil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cee xamee ne kon ummi yu la ndax alxuraan wax na ko mooy koo ne mënoo jàng mënoo bind ndax alxuraan loolu da ngay dégg loolu ngay déggee ci ci laaye wii delluwaat dégg nag ne wama kon mafhumul aayati bi da nga ci xamee ne yenent bi eh, eh, mafhumul aayati bii ma nga ne moom lay bëgg a jàng mooy asaamina wal arbaxin min suratil Ankabut ñaa bi nga xam ne mooy ñeen fukkeel ak juróom-ñett ci Ankabut muy wama kunta tadloo min qablihi min kitaabin wala taqutuhu bi yaminika idan lartaabal muxtiluuna nekkoon di jàng ab téere njëkk alxuraan di ñëw bu ko bindit sa ñu xamee ci ne yonent yi mënut a jàng mënut moom nga ci déggee ma foomul aayat bi moo lay xamal ne yonent yi mënut a jàng mënut a bind kon ummi yu mooy koo xam ne ci dañ laa askan ci sa wo wa yuhraful ummi yu kama warada fi mahajimi luxati al arabiyati wa fi kutubi tafsir al quran annahu al mansubu ummi bi maana al walida li an li an al insaan al ummi yi li anna li anna al insaan al ummiya ummiya yastamiru ala al xaalati allati waladatu alayha ummuhu nit ki nga xam ne lii nit ki nga xam ne ummiyu la day sax ci jàng bi day day day nam juddoo woon ca yaayam rek ne lay mel du ci man du mën a jàng du mën a bind bu ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag xam-xami yëpp ñàkk gim ñàkk nekk ñàkk ummi yi moo tax mënoo ne nangam fen la ko jànge munta bind it munta jàng ba nga xam loolu nag ci kiimaanam la bokk moom ummi yongoogee ndax iqra ku doon ummi yu ba na fi ñëw di taaddi nit ñi mooy di dëkk nit ñi ci tàmbalee téere bi ne iqra iqra bismi rabbika allazi xalaq xalaxal insaana min xalaq iqra wa rabbuka lakarimu lasi allam bil qalam allamal insaana maa lam ya'lam seetal loolu di dëkk nit ñi ba andi fi ab téere boo xam ne kenn mus ko fi andi ndax téere bi bi mu ko andee daf leen a dëkk daa njëkk a wax ne am yaqooloona aftara qul faatoo bi xasri suwarin mislihi muftarayaatin waddahu man istanaatum min dooni laa in kuntum saadiqin téere bi ku mën a andi fukki saar yu ni mel def ko waaw ba mu yàgg loolu ñoo xam ne mënuñ ko mu ne ab ab ummi yu nag wa kayfa yajru umul ummi yu nañ lay nan lay ñemee nag di wax ne ku ku mën a andi fukki fukki saar yëmu fa mu jekki-jekki ne am yaqooloo naftaraahu bu dee ci alxuraan tegale sax booba njiit njëkk am yaqooloo naftaraahu xul faato bi sóoratin mislihi wa da'u man istata'tum min dooni waddoxo man istatatum min doonillah in kuntum saadiqina am yaquluuna iftara qul fa'tu bi suuratin mislihi waddoxo man istatatum min doonillah in kuntum saadiqina bu fekkee da ngeen a wax ne yonent bi da koo dóor fexe leen ba indi benn saar te ngeen woo ñi ngeen ñi ngeen jàpp ne man nañ ko ñëpp indi bu fekkee wax ngeen dëgg loolu yi ñu gis ne mënuñ ko kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ummi yoom googu ci ay kiimaanam la ba nag mu indi loo xam ne fusaha u yeeg bulaqa u yeeg xukama u yi amoon yëpp ba tey kenn mënut a andi lu ko nuru mu dellu wax mu dellu taxaddiwaat nit ñi ci alquran maa kaana muhammadun aba ahdin min rijaalikum walakin rasulallaahi wa xaatiman nabiyyin muhammad du bàyyi kenn ci yéen waaye yonent bi yàlla la ba noppi di ñëw di mottali yonent yi di tëj yonent yi waaw moom lu tax muy muy muy duggal boppam ci bu doon ci nit ñi nga ne lu tax muy duggal boppam ci guuta gii maanaam ne ne ab yonent tuuti ñëwaat sama gannaaw bu ci xamutoon lu wér lu ko gën a wóor di amut <laughs> amut amut fa yu farri fa yu warritu nafs fa yu fa yu war fa yu warritu nafsahu xaasa tawarrut bil xukmi waaw loolu lu ko ci nekkal bu fekkoon amul lóor la wax ndax maslaam moo doonoon ab yonent ñëwaat te bu ñëwaatoon da koy dëggal ndax moom mi bi mu ñëwaatee dëggal na Moussa ak Isa ak ñeneen lu tax nag mu ñëw ne man maay mun xaatimu nabiina te boobaak léegi diggaatoo ku ñemee woote yenent te man na junni at ak ñeenti téeméer te fattaratu yenent dara jege kon yenent bi mun xaatimu nabiina gi googu mu indi ci alxuraan dëkkee na ci dëkkee na ci ummi yu gi dëkkee na ci yenent bi noonu la ko yàlla may kon nag yonent bi alayhi salaatu salaam mooy ki nga xam ne yàlla may na ko yàlla may na ko mu doon koo xam ne mu doon koo xam ne ku yàlla bind rek la mu mat mu mat mu mat la ndax dañ daa naan xaatim ñu naan karam ku am tedd nga la imaamu Aliyu ñu ne ku am sajaan la fa Omar ñu ne ku am maanote la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag ñu ne lépp daje ci moom waaw ah, waxu akmalul wara xalxan wa xulxan saara moo tax moo tax mu ne addaba nii rabbi fa ahsana ta'dibi wa nasatu ala ahsanil kamalat yàlla moo ma yar yaral boppam rafetal sama yar ma sosu ci gën jaa rafeti mat ya ñëw nag wan leen lii jikko ji rafet qul haasi sabili adduhu ilallahi ala basiratin damaa ñëw ngir wan leen yoon wa gën a rafet yàlla def ko mu ñëw ngir yërmande ñëpp wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin ana rahmatul muhdar del alquran waxaat ko ci laxat jaakum laxat jaakum rasulun min anfusikum hasisun alayhi ma hanitum harisun alaykum bil muminina raufun rahim kon mooy ki nga xam ne mooy ñëw moom yonent bi sallallahu alayhi koo xam ne biiram ak biteem sariiratuhu lépp daa mat te sell te baax amul leen loo xam ne da ngay wax ne lii ku ko ci yokkoon mu doon nag koo xam ne da cee boole mën a jiite woyof ndax nee na inni la aqumu ila salaati wa uridu an utawila fiha fa asmahu bukaa assabiyi fa atajawwasu fi salaati karahiyata an ashuqa ala um ala ummihi mu ne danaa dugg ci julli bëgg koo guddal dégg ku doomam di joy ma gàttal julli gi ngir bañ ndey ja xel mi ne ci doon ji seetal kooku baax dox na di dem ci yi dajeek benn jigéen mu ne ko dama laa soxla mu ne ko sikak yoon wi fu la ci neex taxawal ma fekk la fa nga wax li nga bëgg a wax sikak yi sikkatu bu la ci neex toog fa ma fekk la fa toog na ba ab aw nit ñëw fa xaddama naasun min al ahrabi ila rasulillahi ñu ne ko atuqabbiloona sibyaanakum ñu fekk mi foon gone yi ñu ne ko ah, arab yi ne ah, ñi jóge ci àll ba ñëw ne ko ndeke da ngeen di foon gone yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ne ko waaji ne ko xaaloo laakinnaa maa nuqabbilu ñun de duñ foon gone yonent bi nekk awa amliku an kaana allahu nasaha min qulubikum rahma lu ma man ci bu yàlla noccee ci seen xol yërmande te ñun mu def ko ci ñun muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi hadis bi ñëpp dëppoo la jëlee nañ ci Aysatu mu ne maa daraba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam say an xattu bi yadihi wala mraatan wala xaadiman ila an yujaahida fi sabilillahi wa ma niila minhu shay'un fa yantaqima min min saahibi min saahibi laa n yantaqima min aharimillahi rawaahu muslim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam musta dóor dara ci loxoom musta dóor jigéen musta dóor ab surga ndare bu nee ci jihaab masi su def dara it mu fayu ndare xanaa dañoo xotti war ma yàlla rawaahu muslim jibril ñëw na ci moom ata jibril rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fa qaala inna allaha qad samia qawla qawmika laka fa naadaahu malikul jibaari wa sallama alayhi wa qaala murni bima shi'ta in shi'ta ana atbiqa alayhim al axsabayni neexee jibril dafa ñëw nuyu ko ne ko yéen yàlla nee na boole na laak buurub doj yi buurub doj daal kuy nuyu ne ko yàlla nee na loo bëgg ma def lu ko ndax dégg na lil bi nga wooyee aw saw nit liñ wax yenent bi ne ko nekko loo wax nag ma def ko bu la neexee ma këpp ñaari doj doj yi yi nga xam ne day ànd ko doj mooy axsa bay ni axsa loolu lay firi ci arab huwal jabalul xasin zuz zuxóor doj wu ñagas montagne wu ñagas wu ami doj montagne wu ñagas te ami doj mooy mooy axsab ma fab ko këpp ko ci sa waa kër ji yenente bi ne ko bal arjo an yaxruja allahu min aslaabihim man yahbudu llaahu adahu wala yusriku bihi say am rawahu cheytaani yéen yenente bi ne ko dama damaa ragal ne bu ëllëgee kuy jaamu yàlla mën naa génne ci seen digg nañ leen bàyyi te buñ leen def dara ah xam nga dara ji dañoo wute te gis nga eh, yeneen ti yàlla nooxe lii baax baax mer na ba ne laa tasar xalal laal minel kafirin dayaaran ndax innaka in tasarhum yudillu ibaadaka wala yalidu illa fajiran kafaara yenent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la wuteeg ñëpp toog na bis jaa sayyidun soxnata yataqaadaa min rasulillahi daynan kaana alayhi fa jabasa sawbahu han mankibayhi wa axada bi majaamihi siyaabihi wan nabi yaftasimu suma ya suma xaala ana suma xaala ana wa huwa <coughs> déedéet suma xaala innakum ya bani abdil mutalib mutulun fantaharahu humar wa nabi yattasimu suma xaala ana wa huwa kunna ila gayri zalika ahwaju ya humar ta'muruhu bi husni alqada'i wa ta'muru wa ta'muruni ta'muruhu bi husni alqada'i ta'muruni ta'muruhu bi husni alqada'i déedéet ta tamuru nii bi xusnil xadaa i wa tamuru hoo bi xusni taxaadi yi yonent bi dafa toog ba mu yàgg sayd sayd ibnu soxanata ñëw di fayu yonent bi bor bu ko ameel daal di wag mbuumi daal di paño yonent bi daal di ñaga salam ay waxam ne ko yéen waa yéen waa giirub Abdul Mutalib da ngeen mën a téye borob jàmbur lool Omar daal di koy gëdd daal di ñagas ak moom yonent bi ne ko yonent bi di rey ndeysaan mooñ mu ne ko Omar maa Omar de waru ko woon wax loolu maa moom ku ñu ne ku ne am na lu aaje woon nga wax Omar ne ko lan la mu ne ko danga ko danga maa waroon ne boo lebatee del fay fayin wu rafet moom it nga ne ko boo lebaletee nit dee ko fayu fayin wu rafet daal ne Omar digal naa la nga dem fay ko bor bi bor bi sax nag àggagutoon ndax de na ñetti fan kon uru moo na ndax dara waaye ndax des na waaye Omar demal fay ko te nattal ko ñaar fukki saa saa mooy ñaari kilo ak genn wàll nga dollil ko ko ndax gëdd gi nga ko gëdd Seydou nu saxanata ca la doxe dugg ci lislaam daal ne li ma doon seet dama dama jàngoon ñu ne ab yonent dana boo xam ne day lewet ba boo ko naxalee du nax kon xam naa ne yow mii daal di far doxee demee ba ñu tànc ko Makka ba génne ko fa wut ay ndaw mooy saaro suraxata jooju sëñ bi nett li ne nañ daw nañ daw ba topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu ko jotee ñu lor ko ba dem ba yàlla dimbali ko ba mu àgg Madina ba mu demee ba jekkuwaat ba ba am fa fukki at fukkeelu at ba mu ñëw di aji nag nga xam ne jekku na ñëpp ba mu ñëwee ba gañee nag ba mu gañee xajo ba gañee ci xar ci ci fattu màkk ba la laa wax ba mu gañee ci fattu màkk ba ba gañee nag nga xam ne tey daa ñëw ngir gañe màkk ba mu ñëwee ba gañee ba dem ci biir Kaaba ba yéeg fiñ ko doon aaye ba daane xërëm yi daa wax ne nag maa saa taraw na anii faahirun bikum lu ngeen jort ne moom laa laay jëfante gi yéen yéen ñi ma doon sonal te di ma génne ñu ne ko aqoon karimun wam na aqin karim mbokk mu tedd nga tey doomi mbokk mu tedd mu ne idhabo fa antum toloxa yéen ñëpp dem leen liibar ngeen loolu la yonent bi daan def loolu nag suñ sang bu baax bi la roy moo tax biñ ko sonalee yóbbu ko ci géej gi nga xam ne lu dul génne génn guro nee na daj naa ko ci bi ñëwee ba fii mu ne xafawtu hanil ahday turan li wacci man nafaahum li xayri sarmadan las ko kenn mustaba waaw loolu nag kon moo ko may lu ab tànkam lee rek ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax nag yàlla tëbb ko kàttan moo tax mu uh, am na benn xisa rek moo ci nett bi peste bi mettee sëñ Mbàkke Maane dafa uh, waaxu ba raam ba xam nga këram mi ngi tolloog kër sëñ Mbundu mi gi ngay ci kaw bi mu raama raamaram ba tolloog sëñ bi fekk mi ngi ci barrière bi mu daal ni ñëw ni ko ah, Mbàkke de peste ma dal te sonn lool de fekk sëñ baa ngi ci biir barrière bi boo ci waxut di leema lool sëñ Mbàkke ne nag mag la sëñ Abdou Xaadir nee na laaj ci moom laa xamee lu bari te nee na ma poroxaan sax damay nett li na ma lu ma ko laaj ci poroxaan ma ne loolu di bëgg démb rek <laughs> mooy moo tax mu nga dégg fasu ma fasu magam moom moom muy wax daa gudd fan nag ba nga xam ne nee na fi ba cinquante et un te te te ci poroxaan lo lo Seydou Xaar neen loo nga laaj ah loolu di bëgg démb ah <laughs> sëñ Mbàkke maa ne moom ne moo ñëw sukk ci kanamu sëñ bi sëgg nii ne ko bi sëñ bi daal ne daal def nii kaala gi tifli lu mel ne galaas moo tàmbalee ci bopp bi wàcc daal na fi ne ko mbàkke mu ne ko taxawal ca suba sa mu ñëw ne ko mbàkke mu ne ko taxawal mu ne ko bi wéyee di am de dalaa neex waaw ndax bi ma demee ci guddi gi la laa tàqali lépp waxal ci festi bi ñëpp ñëpp mucc <laughs> bi ma tiflee lu mel ne galaasa moo tàmbalee ci sama bopp bi ba ci weeyu tànk bi ma ma mel ne musu dara musumaa jot waaye sëñ bi dimbal leen nit ñi kooku sëñ Mbacke maa ne dimbal leen nit ñi nag waaye ah <laughs> kon nag sëriñ Touba li ma jeexale mooy li ma déggee ci sëñ mooy dafa wax ne minallaahi rabbil xarsi abqi salaatahu bi taslimihi lil mustafa al muxjilil yam sëñ bi nee na mos dégg kenn ku man wow way wenn way nga tudd ci yàlla tagg ci yàlla julli ci yenente bi sëlmal ci yenente bi tudd ci turu yonent bi tagg ci yonent bi minallaahi ci yàlla rabbil hasi kay borom aras foofu la aw tagg yam ak ci laay sàkkoo salaatoo ak julleem bi tasliim yi ànd ak sëlmalam lil ñeel ku tedd ki kuñ tànn al mux jilil yémi ki nga xam ne moo géej yel géej loolu la tëje muqaddimaat wenn way woo képp kenn musu koo def kon nag alhamdulilah eh, ah, eh, ah defaat na ko wax ah, wax nga dëgg de wax nga dëgg engrais bi feeñati na de kon nag li nag yàlla na nu yàlla taas ci barkeem yàlla na nu yàlla taas ci daraje ci daraje ci taas ci barke ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wasallam taas ñu ci barkeem sëñ Touba yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi defal ñu mucc te nangu suñu taalibe wa kullu aamin wa antum bi xeyrin assalaamu aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu di ñaanal Cheikh Moustapha Mbacke mii itam sama borom defal ko wéerug weñ ba mu ànd ko ak waa Bànnoo Balla yépp li seen maam bëgg ci liggéey bii ci yoonu murit yàlla nañ ko ko defal ba mu mat sëkk ci darajey borom Tuubaa kon ñi ngi sant ñépp di leen gërëm di leen xamal ne itam ak cant day day ñeel ñett kila la defal loo munut ak kilo defal loo xam ne dalay jomb alak ak ki defal loo xam ne mënaloo ko woon sa bopp lii nag mënaluñ ko woon sunu bopp ndax tollu na jamono yoo xam ne ouvrier bu nuyu sa moroom bu neppee dem raxasu ji wala mu sangutu ji tey Sëriñ Tuubaa dindi na lépp ba kenn ku ne ci nun yaa ngay sant bu wér a wér a wér ca fa nga nekk te lépp ànd te jël sunu lépp jox ko sëriñ Touba rek moo nu ko defal moo tax nu dajee ceeg lam mu doon wax wax di la awaay jële si na daamoo fii xidmati wahab lahum maaraamu kon nag way woowu bu nu ko jëlee dañ koy jox sëñ Moustapha mii addiya lii sunu yitte tey nun yoonu murit rawatina nun waa daayira Matlaboul Fawzayni mooy yàgg fi sëñ Muntaxa ak yàgg fi sëriñ Moustapha mi ibnu Cheikh Abdoul Khadir Mbacke ak mboolem waa Bannoo Balla ak taalibe yëpp yàlla nañ fi yàgg ci darajey borom Touba kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di santit uur yi ci ñëw bii nga xam ne si ànd nañ ñëw ko ci liggéey bii leneen li ko ñaareel mooy di leen soññi ci doxeen wii ndax Cheikh Moustapha Al Karim mii am na lu mu waxoon loo xam ne war naa daw sunu yaram ndax dafa wax ne Serigne Saliou daf koo bàyyee ndigal loo xam ne bu sañoon du des gannaaw mu xamaloon nu ne bu ma fi doon ñëw def fi temps bu toll ne ba ma joxee ndigal li ak léegi la ma fi daan ñëw di ko toog di ko waxtaan ak yéen sax bu ma bu ma fekkutoon kenn dinaa fi toog diir bu toll noonu door a jóg kon kooku jox nanu considération bu wér a kon yàlla na ko fi yàlla yàggal Cheikh Moustapha ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di sant it Cheikh Moustapha Diatara mi nga xam ne moom nga daan àndal di ñëw barki démb dem nan fa mu mettit lu lool xam naa bi ma ko gisut xam naa ne loola la mu mettit lool ne dañu koo jox rendez-vous rendez bi fële hôpital dakaar mu war faa dem wuy ji ko mu tiisoo lool nag sëñ Cheikh Moustapha ñëw fii teew te moom teewu fi kon nag nun ñëpp nan ko defal duwaaw sa borom na fëgg boppam mu ne ñokket ci dara jëye Serigne Touba ba weer wii déwén buñ ko teewee Cheikh Moustapha Diatara yàlla na toog fii ci dara jëye Cheikhoul Khadim ñu ngi sant ñëpp guddi gi sori na te sëriñ bi dafay am feneen fu muy dem kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp.